asalaamaaleykum suñu mbokki internet yi nuy nañ leen niñ koy defee saa su nekk ci seen émission Zap Série tey nag ñu indil leen ko xam ne kenn dootu ko présenté ci wàllum série su ma leen ne série idol nag seen xel war na dem ci kii gën a lakkale ci série idol duñ def lu dul taalal ko suñu micro. <laughs> Margo nuy fay naa la. bàyyi la nga nuyoog mbokk internet yi. Euh, salam alaikum, may qui képp ku may seetaan de nuyu voilà les fans de la série Idol may nuyu une daal. Margot est su ma la ne woon kan Margot l'on l'on loo mooy tontu. yow kay wax nga ko ba pare ben fii bu lakkale kay <laughs> nekk di semer le bordel voilà di def lu ko et tout mais bon rôle bi moo ko <laughs> Margot ñëpp xam la ci série boobu du Idol. est-ce que mën nga ñu wax nan nga def ba intégrer série bi. bon dañ ma woo ma ñëw def casting et tout après ñu rappelé waat ma wax ma projet bi que série lañ bëgg tourner et tout après ma ñëw waat def bi ma defee casting ba pare ñu woowaat ma ne ma euh, jël nañ ma donc non laa si bokk. da nga def par casting après ñu woo la nga jël est-ce que mën nañ xam lan moo la motiver ba nga def théâtre. C'est vrai que, <laughs> que ça ne faisait pas partie du tout de, voilà, de, mes, de mes rêves. musuma woon que ni a ba jouer ba jouer ci série et tout donc sauf me ma mës que ni au hasard <laughs> ok bon c'était un rêve depuis toute petite ou bien. non pas du tout ça faisait pas partie de mes rêves du tout. ok nous Margot ci série Idol. tu maîtrises bien ton rôle est-ce que c'était facile au début facile bon <laughs> je dirais pas non déjà caméra est au team la réglage déjà c'est c'est c'est un peu difficile Je suis team caméra wala caméra musu la team nga jékki team. Je tey ñu ne la da nga war a def lii jox la ay texte yoo xam ne da nga ko war a <laughs> donc mon rôle <laughs> c'est pas facile du tout mais bon sant yàlla Machallah, on a vu que tu l'as bien réussi. C'est gentil, merci. Euh, Est-ce que Margot nous met dans la série Idole, lakale sonale est-ce que réellement Margot bi une série idole non la mel dans la vraie vie. <laughs> non lakale def n'a ko mais pas comme dans la série mais La bëgg naa daal bu mu ñëwee di sonal ñëpp kafoo reetaan man loolu mais par contre Margot bi une ci série bi donc c'est pas Samantha du tout. <laughs> donc Margot et Samantha c'est deux. ouais c'est deux personnes différentes. Euh, ci série idole bi batay euh ban séquence nga jouer séquence bo xamné marqué na la trop nga xamné tout le temps bo togué dang koy koy ko day nek sa xel. séquence <laughs> xaw ma sax. mais au moins jouer nga lo xamné tay marqué na la quand même. ah bien sûr euh bi mo grand laay di bourse si escalier bob ça m'a marqué. ndax ñëpp tiital na ñëpp ñëpp naa Margot dee ñi nan voilà <laughs> mooy lol et ça fait mal, j'espère. bon, ça va, hein? c'était le but. ok euh, tey ci série Idoles boobu tey ban anecdote nga ñu ci mën a nettali. <laughs> xaw ma sax <laughs> c'est anecdote yi yi mujjee bari. mais ñawal ñu ci benn wala ñaar. non xam nga rek des fois nga ñëw euh, comme man par exemple euh, des fois ma ñëw. du ma jàng samay texte fii laay nekk di lëmbe si kër gi rek di dugg dul sama yoon <laughs> nekkul di foo di kaf di foo di reetaan ba sama heure tournée jot nga ñëw ñu tiimal la caméra yi nga nekk fa boo waxee benn moo fàtte li si des <laughs> donc chaque fois dañu ma moo tax léegi su ma ñëwee rek dañ ma naan màggoo kaay su ma ñëwee ñu toog rek ñu jox ma texte ni ma fii doo fi bougé tey ndax yow. <laughs> waaw dañu pris la ni ñuy def xale yi. ay ah, mais c'est normal euh, Margot tey jii boo amoon message booy lancé ñi nga xam ne seen doom yi dañ leen di violer parce que gis nañ ne euh, bon peut-être xëy na di ñu ci mun a wax ndax euh, joué nga rôle boobu seen doom yi dañ leen di violer ñuy nëpp nëpp loolu ci biir famille bi comme quoi que le linge sale se lave en famille tey boo amoon loo leen di wax parents yi lu ñu doon parce que gis nañ ne àdduna xale yu bari ñi ngi yàqu ndax lan nëpp nëppal gi ñuy def ci biir kër yi. da ngay gis yenn acte yoo xam ne nit da koy def ñu naan non nañ ko sutural et tout alors que lépp lépp mënoo jël lépp nga ne da nga koy suturaal nit ki am na yenn acte yoo xam ne loolu sutura xayatu fa ndax viol déjà c'est un acte tellement ignoble boo xam ne xamoo nit ki li muy ressentir la victime ci boppam donc nañ bàyyi yooyu am na yoo xam ne daal buñ buñ toog naan waa ci biir famille bi la bokk ak xaw ma lan nañ ko sutural nañ ko dénoncer moo gën j'espère que sénégalais dinañ entendre ce message Margot nan nga gisee milieu cinéma bi ak série yu ah déjà les gens qui tournent tourner ay séries c'est déjà bien parce que <laughs> je me dis que peut-être gens ont un professionnalisme wala am nañ expérience mais peut-être may na une fit pour nous tourner ay séries série. daal ci vers Sénégal Les gens qui commencent à nous ñi commencé nañu wàññi ay brésilien ou brésilien mexicaine dans ñu daan chaque 19h30 rek ñëpp dem scotché wu si kanamu télé yi di seetaan donc loolu wàññeeku na rek c'est déjà bien. ñun ñu ngi yor suñu propre produit wu bopp. man nag loolu man lolu dama ko mu daan mës a avant moy dugg ci Idole sax dama naan ne pourquoi pas télé yi euh, réaliser ay série financer ko ñu jël série yoy di ko teg seen télé ñëpp di ko sétane mo gën ñuy jënd série yo xamné ne étrangère ñu tégal nit ñi ñu koy seetaan ñun xamuñu lolu dire que eh, li nga doon rêvé mujj na am. gis nga sant yàlla. <laughs> Margot tey boo doon conseil jeunes yi nga xam ne dañoo bëgg a def cinéma parce que xale yu bëri ñu ngi bëgg dugg ci série yeeg parce que boo leen doon conseil tey loo leen di conseillé. surtout nañ ci def ndànk rek c'est pas parce que voilà tu rêves d'être acteur ou actrice rek surtout jigéen ñi sax laay waxal les jeunes filles ñu ci bëgg dañuy rêver nek actrice ba daf leen di jaral ñu dugg ci lu nekk n'importe quoi ngay gis donc ma leen wax dal ñu ñu def ci nank c'est pas parce que voilà tu tu veux faire un truc wala tu veux faire partie d'un truc rek que voilà lu ñu la proposer rek nga ne ay naa nako jël. Ah, gis nañ ne en général chantage bi day bëri nga ñëw ñu naan la defal lii maa yor lii doy na waar daal. billaay bari na fi torop chaque jour kay nga dégg cas bu bees mais bon nañ ci def ndànk rek moo gën. Margot tey su ma laajoon lan mooy say projet loo may wax. <laughs> <laughs> Barina. par exemple j'ai rêvé am ma propre agence de communication et de création publicitaire j'ai euh, rêvé aussi à ma fondation BOP. amin <laughs> amin vraiment c'est mon projet quoi Margot à part jouer une série Idole qu'est-ce qu'elle fait dans la vraie vie bon j'étais au chômage mais maintenant santéal j'ai trouvé un boulot <laughs> donc voilà léegi maa ngi liggéey fii biir Yvonne Prod donc voilà. est-ce que mën nañ ne série idole apport am na ay conséquences yoo xam ne yu négative la yum la ab yoo xam ne dund nga ko walla peut-être ay lu positif rek nga ci dund. lu positif rek non loolu sax mënul nekk. <laughs> <laughs> déjà mon mon rôle c'est tellement complexe ni de lay romb ça ni ma la bañee ni sans gêne je suis obligée de sourire <laughs> parce que rôle de dóor wala nga nek fa di ak mom parce que loolu yow yaa ko def donc nga ngay accepter li leen euh, li leen nit ñi di wax que ça soit négatif que ça soit positif. c'est vrai que en général sénégalais day jaawale personne ak personnage xam war nga sonu ci mbedd mi de Margot. <laughs> mais bon c'est pas grave je m'y attendais de toute façon parce que des fois rôle des fois à chaque fois day bu rôle bu la nit ñi dañ lay apprécier rôle rek après day day day. mais dama chaque jour comme bi ma nit rek kon kon ça va. <laughs> Margot no sa succès Margot bu démb passé inaperçu ak Margot bu qu'est-ce que ça te fait. aucun changement hein par rapport à ma vie d'avant sauf que voilà les gens d'or ni de l'intercepter, intercepter féliciter et tout de le motiver donc le règle laa mën changé hein. passion. j'aime bien la danse. <laughs> est-ce que Margot sait danser. bon je sais bouger mais bon. <laughs> Voilà, c'est la danse. J'aime bien danser, faire des trucs de, de folie. Donc, moi, lol. <laughs> j'aime aussi le sport, même si je ne pratique pas trop, mais j'aime bien. que Margot est un cœur à prendre parce que gars ils nag dañ ma yóbbante de bëgg déposer cette candidature. <laughs> non pas du tout. <laughs> Hmm. kon am na ci. waaw bu baax. Margot est-ce que tu as ne tas nga yaakaar bëri. ah bon ay yow bëgguma woon loolu mais bon yàlla moo def loolu ma ñaanal. <laughs> kon boog dégg ngeen ko Margot n'est pas un cœur à prendre ñaanal leen ko Margot egsi nañ ci suñu fin émission sa euh, mot de la fin ak kan ngay remercier. bon maa ngi remercier sama famille samay xarit euh, sama waa tim tim margo <laughs> di remercier waa tim idol aussi donc euh, voilà di leen remercier yéen aussi ci seen teewaay tey. Euh, mbokk internet yi fii la ñu yemoon ak la ñuy yem ak yéen gis ngeen ko tey Margot moo nekkoon suñu invité du jour euh, di leen jox rendez-vous très prochainement ci seen beneen numéro Zap Série ak beneen invité jaa ngeen jëf.